Thiaw Star Boy Malaw Thiaw Star lañ Boy Malaw moo ñu won ginnaaw xale yaa ngi liwaatoo Thiaw Star Boy Malaw ku nekk ngay xool sa moom ñu jàkkaarloo ñoom ñaar Thiaw Star Boy Malaw Boy Malaw moo diwoo suuf bi Thiaw Star lañ jàkkaarlool xale yi wàcc nañu booy maalaw caw instant bi baax na leen bëre leen caw instant booy maalaw booy maalaw cokkaas na léegi waaye demul caw instant bu laal a ngi noonu. laal dama bëgg ni yow. <laughs> Diaw Star Boy Malaw Diaw Star Boy Malaw Diaw yaa ngi lewaatoo congo amagul abi bi na abi baa ngi wax ak ñoom nee na bëree def andiwu leen fii abi bi waat na Thiaw Star Boy Malaw xale yaa ngi noonu Thiaw Star lañ jàkkaar lool Boy Malaw moo ñëwan ginnaaw Diaw Star cokkaas na léegi Diaw Star Boy Malaw Diaw Star Boy Malaw Boy Malaw dugal na léegi waaye dalul Jawe Sarr Jawe Sarr gëdd na ko léegi Jawe Sarr door na ko mu daanu door na ko mu daanu Boy Malaw door na Jawe Sarr mu daanu Boy Malaw da ko door gur bu dal Jawe Sarr def demi flexion waaw waaw Boy Malaw ko door door mu daanu Boy Malaw law bi ba door na Jawe Sarr mu daanu. Lawbe ba door na Thiaw Essa mu daanu. ma ne ko na Thiaw Essa. Boy Malaw nuyu naa. fay naa la Fall. mais ñu gis la combat bi nga xeex xeex bu métti doo waaj mu daanu mais Lawbe ci ay fer lañ ko xamee woon ay cuuraay ay nemali ay dogali nu mu demee noonu. waaw mais damaa doon lu bëri Fall. doomu jëri Sadio la di rakki Malaw Seras suñu ñaari yaay bokk ndey ak baay. ah ku Malaw Seras junior rakki Malaw Seras suñu ñaari yaay bokk ndey ak baay. di rakki bi mooy sa ñaata combat. bi mooy sama troisième combat troisième victoire. daa naan nga. ak sëñ Saliou ñaanal leen ma rek Fall. mais fere yeeg loo àndaale wu. lépp naa ko indaale biir ñëw laa ko indaale. lépp incha allah waa ji loo ko jox fere nga ko jox wala cuuraay. waaw bi ma ko jox as góos mu wàcce garde ma dóor ko ma nga dóor ko mu daanu nga fekk fa ba koo doog. dama ko bëggoon dalaat. Ah? lu wax signature bi la. loolu moo métti. donc koo bëggoon def. ak sax du bokk ci làmb. ka moo ne sa kanam. ah naa la ko wax après. di sant nag Waly Waly ak Mor di sant Joni bu déggoo ak Ibra Fall bu déggoo di sant sama waa ko waay yëmbal nag ñëpp maa ngi fay di gërëm yëm rëm yàlla may ko ndam lu trois rëm waaw waaw taalibe ba ngi nii taalibe ba ngi